nuyoowaat démb ba léegi démb ba léegi xam ngeen ne mool yaa ngi sibile am réew nii lañ koy liggéeyee nii la liggéeyam réew da ngay xool la sa doomi réew may liggéey nga doolal leen mais géej gi mool yi doon nappee xam ngeen ne mool yoruti tool di bay gerte baa ñebbe mool ak gaalam la yor di dugg ci géej gi napp di indi ci réewam di jaay ngeen jël bato yi ci àddina bi yëpp sànni ko ci géej gi bu booy daan napp Euh, fukki kees mënatuñu am genn kees ñoo tax ñu dugg ci gaal yi dem léegi bateau étranger yu baree baree baree baree baree baree bari seen contrat annulé nañ ko dem nañ seen yoon benn bateau bu ngeen gis ci gaal gi ci géej gi yu quelques bateaux yu ñu autorisé na ngeen ko signalé baa ngeen jàppal ko seen bopp kon nag booy mool yi sama mbokki mool yi sama rakk yi sama mag yi sama nijaay yi sama tante yi liggéey ci géej gi war naa mën a gaaw fi mu toll nii moom jën bi jën yi ceeb bi war naa gën a niin jën yi war naa gën a rëy nangoot ñëwaat ci réew mi gay na ñëwaat ci réew mi yaabooy na ñëwaat ci réew mi parce que réew mi nag demoon na ba jën yu baax yëpp mënatuñ koo gis mais léegi alhamdulilahi rabil alamina président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko dagg nañ contrat yi bata yi bata yu baaree bari naax ñibbi nañ waaw kon nag yéen a ci géej gi ah yéen ci géej gi jën yi war naa mën a gën a rëy nag war naa gën a yombit nag ni ñu ko defee ci géej gi na noonu lañ koy defee ci secteur yëpp entreprise yi surtout MDL bii fi nekk nii ci ginnaaw Mboro président Ousmane Sonko Diomaye Faye ñëwal nga xool MDL bi ñëw leen ngeen xool MDL bi li fi am ñu ñaa maa ngi koy sàkku man jaay Touba dem leen ngeen xool MDL la fa am contrôler leen ko ngeen xool contrat ya waaw gone yi ci tund wi kenn liggéeyoo fa